en tout cas daal boo loo boo bëggee dégg-dégg instant bii moom wax dëgg fa neex yàlla man man instant bii nabu dama ko yërëm nabu man dama ko yërëm maa ngi dégg ñu ne dégg dégg déglu nañ ko ñaari yoon déglu nañ ko ba ñetti yoon mais instant bii nii man je pense que ne day nekk sous le choc parce que nañ waxante dëgg ba mu àndee boo gisee am na benn vidéo boo xam ne kenn dafa jooy ba sonn dafa jooy ba sonn dafa jooy ba sonn déglu nañ ko ñetti yoon déglu dañ ko njëkk a déglu ci jour bi sénégalais yëpp xamee ne que Aziz dañ ko rey mooy ci mercredi bi xam nga mardi ci guddi lañ xam ne mm-hmm. Aziz dañ ko rey bi ñu xëyee ci mercredi bi ci lañ ko mm-hmm. woo déglu ko mu joxe version woo ñu woowaat ko ci vendredi bi mu joxewaat version ñu woowaat ko démb mu joxewaat version xam nga police boo waxee benn wax waxaat ñaari wax rek wax yi bu niroowul rek duñ la bàyyi nga ñibbi dañ lay téye loolu moo tiital nag ñëpp waaye kenn yéenewu ko mu ñu téye ko billaay ah man de billaay buñ ma ne man moom wax du fa neex yàlla buñ ma nee que ne buñ man buñ ma waxee ne que ne Nabou Leye moom complice la buñ bis buñ buñ buñ bis buñ àttee ñu ne Nabou Leye complice la wax dëgg fa neex yàlla moom dina ma bett moom wax dëgg fa neex déception bi may am ak choc bi may am moom man ak yàlla rek a ko xam. asalaamaaleykum te bu boobaa dinaa xam ne que ne àdduna bi tukki na. yéen ñu dugg si. dëgg yàlla dëgg yàlla. merci merci Ibou kontaan nañ am na solo. bilaay la gën a kontaan merci beaucoup jërëjëf waay di tëj ni bi. dafar ma mu ngi la nuyu bu di la suivre bon man fi may rebondiree mooy. Euh, Ndeye Awa yaa ngi doog a yéeg sa micro yi bañ jox la parole. non moom laa jox parole maman moom laa jox parole. moom moo war a wax Ndeye Awa moo war a wax. ñoo leen ziar Ndeye. maa ngi delloo ziar bu baax. man fan laay rebondiree mooy fii femme bi tëjee. Mhm. parce que man depuis le début ba tey maa ngi topp affaire bi. te sénégalais yi nekkatuñu ay dof. Mhm. léegi ñëpp dañoo yeewu. gis nga am na li nga xamante ne nii yenuwul maanaa parce que nabule nit ki dangay ngay ànd ak moom guddi ak bëccëg ñun ñëpp ko bëgg te bu ñu sañoon ko affaire bi ci laale dëgg la de mais dañoo yor xel di ko utiliser dañuy bàyyi far farloo ak kii laa faral kii laa àndal ñuy déedéet li ñu teg carte sur table yéen da ngay yow da ngay ànd nit ki ngeen di génn xaw ngeen nekk ay xarit mhm. mu feebar nga ànd ak moom ñu ne dimanche moom moo ko yóbbu hôpital yéen a may dégg bu baax dimanche mu yóbbu bu baax mu dem ñëw ñu ne samedi moo ko toggal ay dimanche mu yóbbu ko hôpital mu samp biteel mu bàyyi ko ci yoon bi dem kooku dem def arrivé pay dem dugg néegam tëdd lën su fekkoon ne moom amul dara lu du bàyyi ba est-ce que yow nga yóbbu nit hôpital mu samp biteel lën bi woowoo ko lijjanti woo ko ba mardi nga soog ñëw dama ko woo ba sonn jotuma ko yéen wul maanaa te ñoom ñëpp nee nañ mardi lañ woo Aziz ñoom ñëpp seen version lundi bi dañ koo tëb mardi lañ woo lañ ko woo parce que dañoo bëggoon a même borom kap bi dañoo bëggoon a puus ci dimanche bi waaw te affaire bi dimanche lundi la lundi la léegi pourquoi Nabou Leye ñu ñuy wax ne dafa set nga yóbbu nit dimanche mu samp bitéelu lundi fexe woo koo joindre demoo këram dañ waxante dëgg parce que moom li tax waa police jël ko jëlaat ko parce que moom moo njëkk ci seen de crime bi mm-hmm. moom ak magu Nabou Leye bi Papa Na Brousse mm-hmm. ñoom ñoo jiitu ci scène de crime bi te en général ci jiitu ci scène de crime bi boo ko ci la bokk yéen a ngi fàtte xale bu jigéen bi ñu rayoon ca Orange Money ba waaw collègue am bi rey ko mhm. kooku moo jiitu woon ci seen de crime ba ca paaru ba mu ñëwee woote woon est-ce que yéen a ngi rappelé li ma leen wax ñu ngi si rappelé wu bu baax kay kooku noonu collègue euh, bi moom moo ko rey ba ñu ñëwee moom moo jiitu ci seen de crime dafa ñëw automatiquement jubal fekk dem foofu léegi nag ba mu ñëwee woo Papa Lagrosse ba ñu duggee ci biir moom moo insisté pour ñu daj kër gi mais lu tax defu ko ci lund bi mu bàyyi ba ci mardi bi xam nga loolu noonu ñëpp ay fee la te loolu dañ see war a duut baaraam lu tax mu ne nañu tijji waañ bi lu tax mu ne waa ji tijjil waañ bi diffère genre da dañ ñemewul et tout nañu xool nda dina xool parce que sa mag la demal xool sa rakk la d'après ci li ñu wax mais loolu noonu yëpp nabu man bu ma sañoon mu set mais mënul set nabu mënul set ala kulli aal même bu dee kii nañ ko mais am na li nga xamante ni nii am na lu ci suuf am na lu luus ci suuf loo xamante ni nii nit ñi soit ragal nañ ko wax wala xamuñu fa la ñuy jaar ba génne loolu mais suñu police scientifique bi bàyyi leen xel ne ñu lii ñuy def nii ñooñu ko gën a mun fukki yoon ku ñu toog teg la ci taabu par force bu li ñu bëgg a xam jàppale ci bee Mamadou Lamine Diaw heure bii tak sénégalais yëpp dañoo génn loolu mënul la parce que moom mënul ñëw ñu ne ma da doon laaj euh, loolu paasu màggal ñëw indaale paaka loolu sa insensé yenuwul maanaa sax yenuwul maanaa nit ñi doxatuñu parce que dañ koo jëloon dem ko noonu pour mën a lëndëmal gaa yi rey pour ñu mën leen a lëndëmal génne leen benn par benn parce que buñ ko boo déggee ne yow boo defee dara ga dégg ne jàpp nañ ko ne rey yow dèjà da nga naan ouf waaw da naan kon man kenn soupçonné wu ma ah looloo tax ga gis gaa yi bu leen yaakaar ne ay dof lañ ay nit njaay lañ li ñuy def xam nañ ko waaw police yi def xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax a baax moo tax affaire bi teey leen ci bu leen satal kenn gis nga gis nga waa waa waa division investigation criminelle mhm. du ñu yàq deru nabu di ko jël di ko mettre en garde à vue parce que sénégalais doful ñu mën nañ ñoo waxal lépp mën a topp kaa mën a duggul suñu yoon nekkul mais xel lu yàlla may nañu ko wax dëgg yàlla du ñu sos dañuy yokk rek mais du ñu sos du ñu sos dañuy yokk rek mais lu ñu wax am na lu ci nekk dëgg gis nga ba ñu ne ma Mamadou Lamine Diawo moo rey xam nga sénégalais yëpp mënoon nañ yam ci foofu ne alhamdulilah kon nañ ko tëj mhm. mais ñëpp dañoo bañ ne kooku rayul te mënul rey ci lañ commencé di génnee nag ñeneen benn par benn dëgg pire. parce que Aziz moom xaw ma lan la ko yaayam ñaanalee waaye am na ñaanu yaay ndax deewam bii ñëpp la intéressé Sénégal njaay yëpp la intéressé. xam nga lu tax mu intéressé ñu ñun ñi ñëpp ñun ñëpp a nekk en danger. billaahi nous sommes tous à xoolal bu kenn épargne wu parce que yow mënoo ànd ak nit ngeen di ànd pendant des années ay 2006 2007 ngeen di ànd. ay 12 ans damaa tiit sax ay 11 ans 12 ans de relation gis nga bëñ weex na lool waaye daree ko lal. Mhm. Sénégal nañu moytu ànd naa fekk. koo àndal mën noo def ak moom bako parce que yii rek lay indi jalousie la jalousie dong lay doon ci biir ci biir lan ma jalousie parce que nabu amna lu mu dem ba découvrir ko nakari nako ko bëggoon na régler bo gisé sama commentaire ci souf ma ngi nan la nabu mhm. dafa dem ba ci biir affaire da ko upp doole ah. mo jubluwu ci won pour ñu ray Aziz mais règlement de compte lañ doon indi ok wow, parce que lii mënul nek xaliss parce que Aziz yoru woon joowam xaliss bu ñuy jël ci mom dédé da ngay génn nit ki nga bëgg ko mu bëgg la ngeen nekk beneen ndobi ngi ni ngi ci biir affaire yi dem ñu lay naan la ki diw kii def na lii kii dem mais affaire bi règlement de compte lañ dañoo maanaam nabu lañ utiliser dañoo utiliser bu ngeen xalaatee bu baax li ma leen wax nabu dañ koo uti dañ koo yuus gars yi rey ñoom ñi ci biir dañ koo yuus dañoo ànd ak moom ci dem pour comme genre tàjtee sante dem yaa def lii yaa wax lii yaa def lii yaa wax lii yaa def lii yaa wax lii ba affaire bi dem ba ëpp leen doole nag bu mënatul woon sax mënatul woon a génn mënatul a rocceeku. Ah, parce que lenn ci li nga ci mhm. li nga wax nii mën na nekk mën nañ mhm. mën nañ mën nañ nalawloo nabu utiliser nabu ba yóbbu ko ci ah. appartement bi mais nabu xamul woon ne ñii dañuy dem pour rey Aziz très bien parce que nabu moo moo sone ñu tijjil ko. bu dul woon nabu mu sone waa ji du ko tijjil parce que feebar na jóge na hôpital il est un peu xalaat leen bu baax ci li ma leen wax da bàyyi ci xel ay xel lañu yor di xalaat dañ koo yuus bu baax a baax a baax mais dem na ba ci biir mënatul rocceeku mënatul woon rocceeku te xam nañ ne ñaar la dem nañ ba affaire bi ëpp na leen doole parce que huit heures maa bi bañ koy tijjil gis nañ ko moom na gis nañ appartement bi kon nag bu ñu defee li ñuy def ba pare parce que am na benn vidéo bu ma déglu waaj na dañoo génn wàcc ba ñu wàccee nab jigéen kenn ku jigéen ki moom moo def alerte gi ne leen waali ñëw na kon il faut ñu delluwaat parce que bu ñu bàyyi woon noonu la bu ñu xëyee dañuy taf nabu parce que après Wally da lee da koy dénoncé ne moom la te fekk na yow ne dañ koo yuus mais dafa dem ba ci biir affaire bi ëpp ko doole. ah man ragal naa ñu ñu yuus ko de ndax buñ ko yuusee moom munu see set. bien vrai que ah. mën na bañ a dem ak intention rey mën nañ dem juste pour teesante wala ah. genre yooyu. parce que ki nga yóbbu hôpital sa copain feebar nga yóbbu ko hôpital bu sam bi nga ànd ak moom ñu kooku amoo intention rey ko boo paree boo ko bëggoon rey ci hôpital bi mais dañ koo yuus dañ koo yuus parce que si day am mën nañ ko ne bon sa copain kat góor am na beneen gel wala am na beneen nangam am nga affaire loolu yooyu noonu ñu ñëw dugal la ci kàmb googu noonu nañ dem kat pour wax ko nangam ak sàngam mais yow lañ mën a utiliser ba muy dem demul pour rey a jëlul woon intention a rey mais gars yee boobu préparé nañ loolu ba pare parce que kenn mënul woon jaar ci Aziz te jaaroo ci Nabou. ah neex na dégg de waaye yàlla bu mu nekk dëgg. ah yàlla bu mu nekk dëgg. yàlla parce que ñun ñëpp loolu la ñuy ko bëgg. billaahi ñëpp ko bëgg. ñëpp ko bëgg. li muy def mën na ko macha allah kenn dégg ko ci dara. mais nag dañoo yor suñuy xel di ko xalaat di utiliser. nañu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax a baax. man nag maa ngi leen di suivre maa ngi lay topp depuis boobu ba léegi man ba lii boobu amee ba tey nelawuma mhm. parce que affaire bi lu laakatu ci biir dafa bari gis nga lu Braga la wax nañ koy wax gis nga lobby góor jigéen ñi buñ ci jugul ñun bu ñu xam suñu njaboot yi fan lañ jëm ah loolu laa wax de parce que dañuy jur ay doom jur ay doomu góor ay benn waay bu nekk fay Amérique nekk Italie nekk Allemagne nekk di influencer xale yi loo bëgg a doon doon ko mais loolu noonu ñu bëgg a imposer suñu Sénégal lañ ko war a jëlee. kenn bëggul gis sa doom nekk koo jigéen. Uh-huh. mais lii nii buñ ko bàyyee mu dem. billaay dañ dem ba ci réew mi jur fi doom bu góor di doon erreur. billaay. parce que personne n'est à l'abri. gis nga lii nii am nii nii deewu Aziz bii nii nii. non dafay déclencher lu bari élément déclencheur la dina déclencher lu bari bari bari bari te suñu autorités yi ñu ngi leen interpeller ci lii nañ ci jóg nañu jóg ci wàllu góor jigéen ci dëkk bi parce que lobby dañoo am doole. dëgg la gis nga man ba papaanaa euh, kee mais waxee ne woon a waaj. man ba foog matuñu sama xel dafa taw. ne bu dee moom la dinaa juutu dinaa def tàpp et tout parce que boobu ñu ngi doon film mais ñun du ñu ay dof ay nit njaay lañ waa jooju ba mu toogee interview yu borom defaral am na ay mots yoo xam ne kenn du ko utiliser ci sa xarit nga ne xarit la nekk naa moom ba 19 heures xanaa kon ba ma demee lañ ko defaral lan mooy faral léeg-léeg nit ñi dañuy utiliser ay mots yoo xam ne da leen dugal te moo boobu rek moom da dugal te affaire bu ñu lay yem de leneen ak yeneen ak yeneen dina ci génn. surtout papa naa kurus dafa bëggoon setal na bu far da koo dugal. di koo dugal. papa naa kurus dafa dugal na daf ko dugal parce que warul woon wax ni que nabu dafa insister te ne ko mu tijji douche bi. ah très bien. moo tax ba mu ñëwee ñu ne gardien bi yor na caabi. nañu ñëw tëj mu laaj leen benn membre de famille am nabu moom moo cité waa ji woo ko Papa Dalkourouz moom il est innocent non Papa Dalkourouz moom yàlla toppewu ko dara wax dëgg yàlla waaw kay ndaata amul dara mu kumba gaaw dara <laughs> léegi nag moom moo gën a dugal na bu parce que ni Nabou insister ci téléphone bi ne ko maa ngi woo Aliou boobu léegi jotuma ko <coughs> te maa ngi ci buntu kër gi ñëwal dëgg la ñu ñëw jox ko caabi yi mu tijji automatiquement ba ñu tijjee lu tax Nabou ne ko dama tijji waañ dama xool ci waañ bi lu tax mu insister ci waañ bi. billaay loolu moo jaaxal ñëpp. te ba ñu xee ba ñu am na leneen lu ci nekk ba ñu rayee ba pare dañoo yóbbu caabi yi. gis yi dañoo tëj yóbbu ko. dañoo tëj caabi yi yóbbu ko.

man nag maa ngi toog je reste à maa ngi déglu maa ngi analyser maa ngi bàyyi maa d' accord ma chérie kontaan nañ merci beaucoup. merci beaucoup. may ma ma jël sama parole wàcc. ok ok ñoo ngi lay ziar. mbay mi na tëj micro woon bi waay ñu nit kan mooy def bruit bi kan la. ok dégg naa ko. bu seen heure jotee dinañ ko ubbi waaw kay nuyu leen nuyu ñëpp nuyu képp koo xamante ni moo ngi ci live bi Awoush ñun dañ lay bëggee dañ lay seetaan te dafa mel ni dem ci côté sentiment de trop comprendre te ñun di du dëkk euh, euh, dafa mel ni après démb ci guddi bi laa ngay uh-huh. fay sentiment dugg si yow te gis nga nit ki boo waree jox nit ñi boo ci dugalee di trop wax ñu dëgg comprendre ah, maman yi xamuñu kuy joxe information ñoom dañoo bëgg nga raay raayee wax ji moo tax ma koy raay raayee waaw waaw waaye ñun ñun loolu arrangé wu ñu comprendre gis nañu fii gis nañ faa jabar joo xam ne da daan dëbb euh, kii xottu bi tey di ko jox jëkkëram ba mu dee lu nekk lañ fi dégg gis nañu yàggul dara benn booy bu rey pël bi ba taal ko ba pare taxaw naan su ma xamoon ku ko rey dama koy ci gis nga ñun li ñu bëgg mooy nga jox ñu information bu correct gis nga Sénégal yi dañoo yàgg di farfarloo dañoo yàgg di farfarloo fii nii Europe gii ñu nekk da ngay gis jëkkër joo xam ne moo rey jabaram ba pare dañ koy jàpp te mënu koo jàpp ba di ko perfusé hôpital foog ñu kii fee fee bi la ñu xam ne moom la ñu xaw ñu ku rey ñu bëgguñoo xam ku rey mais lu ñu bëgg a xam mooy police a ngi def liggéeyam nañu bàyyi défendre bi ëpp bi parce que loolu nañ ba taal ci suñu gis nga ñun li ñu soxla mooy dëgg bi la ñu soxla gis nga bu fekkee ne yàlla suñu borom bi dafa ne kii ba bàmmeelam eh, bakkanam si lii lay jaaree fa lay jaaree kenn mënu ci dara ki la gën mun a baax si àdduna mun naa def erreur ci nit dafa lëndëm nit koo xam ne du foofu moom yow ba mu fay toog toogoo fa du subaa ngoon guddee bëccëg yaa ngi ànd ak moom fanaan leen benn lal nga mun a sujet ne kii bés bii fekk ko fa ngeen taxaw fii di waat ne du moom du moom du moom ñun soxla wuñu loolu xam nga lu soxla information yi na wàcc ñu déglu ko ba pare beneen bi ñu soxla mooy doomu jàmbur bi suur nañ ko rest na ak fii waxu góor jigéen góor jigéen ñi nañ ko bàyyi ba ñu am si lu leer parce que itam sénégalais yi jullit yi dañoo xaw a lool mun nañoo dem sulli ji doomu jàmbur yi si ñu ko suur wala dara nañu bàyyi waxu boo jigéen bi ñu teg ko ci parce que nit ki dee yi tamit dafa soxla rest in peace looloo tax ñu naan rip pour nga xamante ni ginnaawam dina ñun daal li ñu soxla euh, kii gis nga ñu fi yëg di joxe sentiment ngir yàlla am ngeen yërmande torop waaye tëb leen ko fa yow sel parce que ñun du ñu leen déglu ñun li ñuy déglu mooy police ak ñi nga xam ne ñoo ngi sàcc ci police di jox awus ay information wala ñenn ñi nga xamante ni ay mbokk Aziz lañu ñoo xam ne dañuy am information xëy na ñoo ngi jox awus ci suuf awus lu ñu lay jox génneel ñu ko ñu déglu parce que ñun démb ñëpp la yendu di la xas ne dangay fen ah, parce que benn nit a ko rey léegi dem nañu ba ñeneen ak ñeneen bokk si ñun génnee ñu information yi te nga bàyyi sentiment bi ngir yàlla ak yonent bi lii dëgg nañ ko xam parce que lii boo ko ah. yàggee même dëgg bi dootoo ñu ko joxati te tooguñ fi di tardé suñu bopp merci beaucoup merci beaucoup maman kontaan naa am na solo Saliou ñoo ngi lay sant yàlla bu wér waaw ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp Sénégal ñëpp di intervenir ak ñi ci laay bi affaire moom métti na trop. laay yi yéen waa Sénégal ngeen koy dundee ñu partout dans le monde noonu lañ koy dundee amul ku mu naqari fii ci réew yëpp billaahi ku yow yaakaar ni affaire bi Sénégal nag la yem. da ngaa génnul ñëpp la naqari parce que Aziz ku ne xam na ko si télé bi ak liggéeyam bu mu am fecc ak connaissance bi mais la ak waal yi mais problème bi c'est pas la personne mais c'est rayin bi moo ñaaw. ci jullit ak ay nit ñu daan àndal. lii kenn mënu ko notifié kenn mënu ko rafetal. fi toll tout le monde a peur. gis nga sénégalais yi nekk Sénégal bu leen yaakaar ni yéen ñi ko ragal de même tout ce qui est à l'étranger ñu essayé dañu commencé xalaat. personne n'a plus confiance à qui que ce soit parce que ay nit mënoo ànd ak ñoom nekk ak ñoom xarit. xam nga ba ay ata at ngeen di wax at at yoo xam ay 2006 yooyu yàgg na yu mel nii am kenn waxul diw mu waay mais tey ñi yëg ci defaan ay jigéen ak ay góor man du waxuma loolu mais dama bëgg wax ni jigéen yàgg naa jur doom ju ju rey ko jigéen rey na jëkkëram jigéen lu mu deful ci àdduna bi laa xamul loolu dañoo fàtte yeneen yi góor lu mu deful ci jigéen vice versa ñaari ñaari sexe yëpp a rey fii ñi dugg prison ci jigéen seen doom la ñu rey kii rey na jëkkëram kii def leneen ba kon teel a jigéen di set parce que ni jigéen lañ ci boole non attends nañ bàyyi sentiment yi boobu ba ah. léegi sénégalais ah, kenn nelawul ku nekk yaa ngi xalaat naan kan moo rey kan moo def kan moo indi kan moo wala léegi bu fekkee ay ko sante yàlla mais ngeen bëgg a dugg fi naan diw deful diw deful man waxuma diw moo def ñi fi dugg yëpp kenn taxul ah, kenn mais yàlla ay suspect ay kenn bañu ko te ñun ay am nañ droit wax suñu xalaat donc nit ñi nañu bàyyi ñu wax véhiculer xalaat parce que naqar bi ñëpp ko bokk deuxièmement li ma bëgg a wax mooy Sénégal tey fi ngay xam ne Sénégal ay sénégalais dëgg lañ ay nit lañu xam nga fa lay waxee aw ah. mooy te ñëpp a ànd di jooy di naqarlu benn affaire wala ñaari affaire mooy rey tey déggoo politique déggoo parti politique déggoo Pastef déggoo dara c'est la république qui s'est levée pour demander une une solution wala benn affaire bu leer ci benn affaire bu lëndëm je sais pas si je me fais comprendre lii mooy Sénégal tey da ngay xam Sénégal tey xol yi tey tooy na tey c'est la Sénégal de de hier moo jël moo jël waa tey. kon loolu mooy at léegi ñun suñu Sénégal xam nga la ma ko yàq le discours des politiques tey déggoo politique de fii jëm tant que bi leerul doo dégg loolu mooy république mais dañuy dem ba ci kanam politique yi xaajoo loolu ñi wax waxi dof gis nga ni ñu maasee woon xeex affaire bi noonu la ñu war a maasee leneen lu xew ci réew maa ngi koy di gars di ko wax ñu di ko dénoncer il faut gis na tubaab yi fi ñu nekk nii suñu euh, xam nga ni bind ci palaasu liggéeyukaay oser dénoncer oser dénoncer la ñuy bind. mooy bu leen bu leen ragal a wax bu leen gaañ wala ku leen di rey wala leen naqari di leen ko wax. lii la tubaab bi bind version. tey ci usine yëpp da ngay gis ñu ne oser dénoncer mooy nit bu lay wax dara wala mu lay bëgg a gaañ wala nit di la menacer boole ko tubaab boole ñaawlu ko de boole ci sécurité la bokk te ci tubaab. léegi lan mooy def insécurité nga ñàkk a boole xoolal ñu nekkoon ci bâtiment bi ci immeuble bi ñooñu nga dégg bruit bi nee nañ table tale teñ na fa dégg nga kërëng kërëng nga toog rek di xool bruit boobu mosut a dégg ci bâtiment waxoo waxoo ko mais lan nga yow lan nga lan mais nit ki yow dañoo yàgg jàppante mu a déedéet mosuñu leen dégg ñu jàppante waaw bruit bu toll ak rey nit ni mu fooree nga xam ni nit Aziz dégg naa day defaan booy Pikine la xeexkat la. voilà ah, li ma dégg ci am fitam ko kon gars yi duñ ñëw rek rey ko mu yomb noonu. tu as entendu bri deux fois mais wooteel police wala nga woo koñ bi mais nga dégg wala nga dugg sa kër sax daal ni police am lu ma dégg ci appartement nanga man na bañ cee feeñ. tous les façons de dénonciation sont là. mais nit ñi toog du xoole. ba li am man tey may dee wax ma lu ma xalaat dama ni non yaakaar naa Sénégal ñu doon fareeti ni man yaakaar naa fi mu toll nii conclusion ma tiré ci lii. ragal naa nit dootu fa gaaw a reyati nit. parce que dee gi nii nii nii. gàcceel na képp kuy jullit gàcceel na képp kuy nit gàcceel na jullit di lay walaay taalay parce que ñun jullit di kasar suñu biir nañ ko waxante dëgg mais am naqadi ñun kasar bu loolu noonu nañ ma du dëgg léegi nag li ci am ba am mooy police mi ngi def liggéeyam on salue le travail de la police ko kenn mun ci dara ñu ne Sénégalais ñi yëg fii naan bàyyi leen bax ji noppi leen bu ñu noppi dañuy wax suñu xalaat ay sénégalais lañu. vraiment. réew mi ñi fi nekk actuellement toog fa di ko gouverner dañoo wax ba toog. vraiment. nañuy wax ba régler solution yi parce que mënuñoo reyante ba régler solution yi parce que même même guerre mondiale ci toog table sur la table lañ ko lijjantee waxtaan bi ñu waxtaan bi bu ko nit ñi xeeb. parce que ay sénégalais ñooy wax seen xalaat parce que léegi wax sa xalaat ci rajo amatul. Euh, gis nga Saliou doguma la de gis nga lii nii buñ ci jógee te réglé wuñ ko ñu ko war a réglé booloo nekk benn rey yi dina gën a bëri ndax rey yi góor jigéen yaa ko dugal Sénégal li nit ñi bañ a dégg ñi bañ man loolu laa leen nekk di leen wax keneen ak keneen loolu la nekk di leen wax mais sénégalais yi loolu lañ nangu mënta déglu tant que góor jigéen yi may doole ñuy jël xaalis di ko jox seen xale yu góor yi di leen jàngloo góor jigéen te lu ñuy jàng góor jigéen rey bii du arrêté parce que lobby la boo defee loo a ko def ñu tere la nga bañ dañ lay rey du mujj fenn waaw loolu tamit c'est un autre ah. cas mais ce qui est important mooy non laisse la police faire son travail et après le mm-hmm. reste ñu ñu ñu bàyyi nit mais nit ñi nañu wax seen xalaat ci cas bi parce que lii dafa metti de rey nit moom man de paaka yow puso la jëmee si sa loxo bi Fek ngay togg wala ngay def dara sax dana métti waxuma la ak paaka ni mu toll ponkal ma gum jëm yëkëti ko dabas ko sa hmm. biir bi di la xol nga koy xol froid moi mais lool nit ku ko mu da nga ni julit nga ma loolu ma fan nga yow wat Sénégal léegi nak lool la amul di remercier parce que man boobu ba information yi ci yow la amé parce que man je suis choqué tout le monde est choqué barki dem bi nga waxee démb benen affaire am uh-huh. ben après dama daj gani lan mo xew mais biñu ñuy uh-huh. fekk wat la ci sa thèse dama ni kon ci thèse aw aw Scouti la ñuy doxee ba légui donc tu as des informations continue à les donner parce que ñun da ngay ñuy arrangé da ngay arrangé Sénégalais yépp billahi wallahi da ngay arrangé ñépp li dafa metti Aziz xamuma ko mais daanaa gis ci télé parce que man damay sétane télé man man nante laa du ma toog ñépp naa ñëpp damay seetaan da ngay sétane ñépp parce que ñun ku ne am nga sa TikTok yaa ngi sétane télé ku ne xamoo Aziz waxoo dëgg Aziz ñaari clip la fecc bu mujj bi moo ko fecc moom moo jeebi ak yeneen ak yeneen ak yeneen

donc je te remercie je remercie sénégalais libéré wu tu m'as permis de donner mon avis comme tout le monde jaajëf merci beaucoup je reste merci mon frère merci beaucoup Amna euh, Ahmed non non Jada Mia bu que yaa may tu dis sa micro bi Mia bu fekkee yaa may tu dis sa micro bi tijji naa ko merci. merci bu baax euh, D'accord am lu tuuti lu ma bëggoon fan yi yëpp maa ngi suivre live yëpp mhm. donc euh, man dama nekk passionné de enquête criminelle mhm. donc man dama juste analyser situation bi donc mhm. euh, am ñun ñëpp kenn amu ci information bu leer leer leer mais xel jariñu lu dul xalaat nen te sénégalais dafa am benn défaut mooy que ni dafa émotif su amee nit ku mu xam rek day du jéem a gis défaut

ki fay dénonce. wala faites njëkk a dénoncé bu fekkee ni qui dé. ki faites bu fekkee daf ko de moom dañ koy que a suspecté parce que c'est sûr que ni am na lu fa donc Sénégal nañ pas qui euh, bi émotif bi en fait il faut il faut qu'ils arrêtent d'être émotifs te te te te xalaat ah te aussi di di. Hmm? loolu xam naa daa am appel de. Queen Queen lay zi non Ahmed Ahmed Ahmed ñoo lay ziyaar bu fekkee yaa ngi may dégg tëjee sa micro mais yaa dafa mel ne dafa am appel. sant yàlla bu wér. sant yàlla waa. alhamdulillah waa système trop macha allah waaw yaa ngi leeral aussi tamit wala yaa ngi wax boobu lu jar a wax quoi ça libère les esprits en fait waaw mais juste rek juste juste bëggoon a wax lu ndaw quoi xam naa ni man lu ma yàgg waaw bëggoon a wax ak jeune ak jeune Sénégal bi rek quoi dëgg la c'est la deuxième fois may dugg ci live aussi tamit ah waaw aussi tamit juste rek euh, bon bëggoon a wax ci cadre bi waa tu vois parce que Sénégal man damay wax ni bu nekkul seen objectif tamit bokk na ci seen seen priorité yi quoi xaw ma la affaire bu je pas. la. waaw foofu noonu jeunesse bi am nañ ci part de responsabilité bu mag a parce que nekk nañ ñoo xam ne man xaw ma nag quoi je sais pas. je sais pas quoi le ñu gis Sénégal tam quoi loolu ñoom ñooy xam quoi ça leur mais bëggoon bëggoon bëggoon naa daal jeunesse sénégalais bi lépp luñ ci mën rek ñu def ko ci parce que tamit bëri na fa ay jeunes talents bëri na fa ay soxla nañ leen quoi la pour seni pour seni pour pour action tu vois aussi ils sont prêts à tout quoi aussi amul len luñ ci amul len lu hésiter tam tamit yi yii naa wax yéen ay misaal yu ndaw la rek ay jéego la rek quoi ñoom ñu ngi ñëw quoi en fait waaw man loolu rek laa ko loolu rek laa leen bëggoon a wax quoi ñu waajal ci côté boobu tu vois. am na de rien de rien mais aussi tamit avant tout avant tout d' abord aussi tamit avant de quitter juste bëggoon naa xam euh, Aziz moom ban jour lañ ko rey quoi c' est un jour de samedi ou bien dimanche apparemment ci lënd bi la parce que voisine yi nee nañ ci lënd bi lañ dégg ay ay ay yuxu ah ouais. ci huit heures bi ak ci seize heures bi te euh, te te te police ba ñu defee seeni ay investigation effectivement Aziz lañ njëkk a rey après sept heures quarante trois minutes ci lañ reyaat euh, ki Wali donc ça concorde avec euh, li voisine bi wax. d'accord. parce que man dama dégg en fait ni ñuy wax ni comme ni samedi bi la ko dégg quoi ni bi la dégg bruit bi quoi. non non parce que ci bi dimanche bi am na ñu ak Aziz Aziz génn na te ci ci ci ci lundi bi ci suba si tamit euh, kii nu mu sax Waly génn na ba dem liggéeyi dimanche bi am nañu gisante ak Waly ba 19h am na ñu doon gisanteek moom te dem na ci hôpital apparemment. merci beaucoup Ahmed kontaan nañu. de rien à toi ñoo ngi lay ziar Queen. Queen dégguñu la bu baax de. alo waaw waaw ñoo lay dégg léegi. delloo ziar. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp. Mhm, ñoo lay fay. en fait man ci gaaw Nabou Leye rek laa bëggoon wax tuuti rek. waaw parce que aussi xam nga Nabou Leye mhm. moom su waxee ne intime euh, xarit intime la si euh, Aziz waaw donc mun ko yóbbu soo bàyyi ko si yoon bi loolu dafa sa xarit intime mënoo ko yóbbu ne tax dafa ko perfusion mhm. nga am solo euh, nga andiwaat ko si yoon bi bàyyi ko pour mu jël taxi loolu dafa dafa dafa loolu am son parent dafa dafa louche man man loolu moom d'accord ma ci loolu la fait que nag mu ñëw ni demal xool si si toilette bi xaw ma demal xool si waa bi loolu aussi man man man d'accord ma ci tu vois mhm. nit ki aussi pour ñëw di ko plaider ak bon am nañ ci droit parce que xam nga nit moom nit rek nga mën a doon parce que mhm. xam nga nit mënul wax ni moom dafa nekk xarit intime ba pare ñuy xalaat ni def na ko yéen ñi mhm. loolu moom nabu lay moom bu fekkee moom complice la si affaire bi moom moom ci boppam sax moom dafa war a dafa gàcce bi mu ko mu ko dundale mu ko dundale man ah. kay xam ko di ñaan yalla eh, rek eh, yalla yalla sutura ko mu bañ ko li kay suñu combat la pour ñu ñaan yalla mu setal na bu force kay mu setal ko mom ñepp mu mën nañ ci boppam des loolu moom dafay xaw dafay xaw day waar trop mais ci waat dik tamit dañu nangu ñu koy takkal parce que amna ku fi yego naan même bu fekkee innocente la mu nañ ko takkal ko non non non dig do do do dal daf ñuy nangu ni takkal nabu gay noonu noonu nabu lay noonu noonu noonu rek. non non dafa ne xale bu jigéen bi dafa def benn analise tamit boo xam ne soo xoolee ba ci biir dafay wax ne que mën nañ piéger nabu pas dig du pas police dugal nabu mais ñi rey nabu mën nañ ànd ak nabu comme genre dañuy dem seeti ji ki nga xamante ne moo di euh, Aziz comprendre nga ba ñoom xam nañ ne dañuy rey dañuy rey Aziz mais Nabou xamul woon ni que dañuy dem pour rey Aziz léegi dañoo bëggoon takkal Nabou dem ànd ak Nabou ci apartement bi pour ñu ne Nabou tamit mu ngi fa woon comprendre nga léegi nabu xamul woon ne ñii bu ñu demee dañoo am intention pour rey ko léegi ñu profité ci situation bi rey ko léegi nabu affaire bi da koy jëlee kaw parce que du xam lan la war a mën a expliquer présence am ci appartement bi ak mën nañ ko piéger te loolu kenn mënu ko setal non non bàyyi ba nga. voilà dama ne xaaral ma def lu signe quoi. man maa ngi def la mais police mënul takkal kenn police du la takkal. police da lay xool boo nga waxee lu leer nañ. boole boole ceeb wax ah du fekkee mën nga fee ñëw instant damay def live moto tax mënoo jël auto taxi nga ñëw fi waaw defal loolu nga ñëw ma defal émission ñëw dëgg la billaay dëgg la de amin amin amin Merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup. Mmh. Merci beaucoup Queen kontaan nañ. alhamdulilah. Euh, Pape Thiam ñu ngi lay ziar. da lay ziar aw oh, maa ngi lay bëggee bu baax. delloo bëggee. bëggee nekk si laa bi del nalaw nalaw baax na de. <laughs> non kaa bi euh. kay kenn du nalaw. ku nalaw complice la. <laughs> waaw mais nga noppal xel bi tuuti. <laughs> mais naaj sax ñoo ngi rafetlu ñoo ngi rafetlu intervention yi gars yi def ci live bi. dëgg la. kaala boo xam ne bon Sénégal dafa am loo xam ne dañ naan presque année bu jot genre crime yi nii day dafay dafay am si suñu day am surtout période màggal waaw jaa période bu doy waar la jaaxal sénégalais yi on se rappelle daaw benn femme bu nekkoon Tamba. sénégalais yi on se rappelle daaw benn femme bu nekkoon Tamba. Mhm. bi waa ji jëloon bakkanam ba pare génnoon def audio di gërëm papaay xale beeg yeneen ak yeneen nekkite moom moo ko def gisoon nañ tamit la cas de daab bi ñu fekkoon ci multi service bi te ki ka rey daw yuuxu ci scénario bi naan ki ne deene ki ne deene ndekete moo ko rey donc à chaque rek genre rey yi buy ñëw rek bu ñu demee bay découvrir ku ko def mbetteel day am waaye nag police police dafa am ba pare si biir police mu am lu ñuy wax police scientifique. Mhm. mu am ay agent de renseignement maanaam les les ay agents yoo xam ne ñoom ils sont plus renseignés que nous donc ñoom ñu ngi def seen liggéey mais aw man dama bëgg a wax si ñaari point d'abord. Mhm. premier mhm. point bi mooy cest à dafa am ay information yoo xam ne malheureusement information yooyu ñu ko génne joxe ko dañoo rouler sénégalais yi si farine bi. mu dem ba si am ay sites yoo xam ne sax ay sites yoo xam ne lay leer ne information yu joxe causé nañ genre difficulté yooyu genre jafe-jafe yooyu xamul waral loolu. Mhm. am na ay jëmm yu ñu si génne jël ci seen photo taf na ñoom ñoom ñooy waaji wala ñoom ñoo def lii. dëgg la. te alors que nekkuñu ko man c'est-à-dire man damay bëgg bu ñuy génne information ne diw moo def wala diw mooy diw. nañu am lu ñu leer ne moom la bu ko defee ñu mën ñu mën xam loolu le cas de par exemple. Sénégal génn na joxe tur léegi am nañ si bëri dem jëli ay ay photo comme par exemple le jeune euh, Mamadou Lamine Ndaw c'est pas quoi ne diw mooy man démb gis naa ñetti photo yoo xam ne ñi maanaam trois personnes yu bokkul la te ku si nekk nee nañ moom mooy moom mooy moom mooy booy boobu mooy borom tur boobu noonu finalement doo xam kan moo si ndaw kan moo si euh, Mamadou Lamine Ndaw boobu noonu léegi loolu nag man fu ma koy fu may blâmer mooy fu may blâmer police parce que police dafa baaxoo di def heure bu defee enquête si yenn crime heure bu defee enquête si yenn crime bu si amee lu ko leer heure si amee lu ko leer rek dafay génn def lu ñuy wax communiqué présumé maître bi euh, meurtrier bi jàpp nañ ko diw la fii lañ ko jàppee yóbbu ko si scène si si crime bi fu mu si lieu bi fu mu defee crime bi mu def mu def benn scène démontré nu mu ko nan la fa duggee ak nu mu ko reyee ak lu mu ko wax mais buñ toogee boobaak léegi ba léegi police defagul informe defagul loolu noonu communiqué ngeen war a xam ne kon information yi Seneweb joxe est-ce que wér na information yi Seneweb Seneweb joxe est-ce que police moo est que police moo ko ko jox est que moo tax ma ne leen ñu def nànk ci affaire bi parce que Seneweb moo joxe ni que Mamadou Diaw moo rey ñu dem ba ci biir ñu ne Mamadou Diaw deful dara dafa am feebar xel voilà kon Seneweb roulé na Sénégalais yëpp si si fariñ bi léegi nag parce que Seneweb bu ngeen warul def communiqué boobu waru ko njëkk def la police parce que police moo ko war a njëkk a def. Uh-huh. parce que enquête la boo xam ne enquête bi demande nationale la. dafa doon mbir boo xam ne demande nationale la. sénégalais yëpp ñooy toog di ko xaar parce que lii dafa ñaaw fekk ñaari ndaw yoo xam ne dañoo nekk si yoon bi liggéey. seen yi waajur yaakaar leen nga jël seen i bakkan ci ay caaxaan léegi nag si kaabu lu ñu jëlee seen bakkan affaire da xaalis dëgg nañ si affaire da xaalis dëgg nañ si leneen ak leneen mais information yëpp wérul parce que tamit munoo munoo ñëw démontrer benn nit nga ne benn nit moo rey diw ak diw nga wan ne jëmm joo xam ne day leer na kooku kooku noonu noonu benn nom homme de 33 kilos sax bu xeex ak moom mënu koo faat nañu waxante dëgg loolu nag mooy lu ma si wax mooy

ay indice nga ne ah diw de wax na téléphone ak moom lii def na nii loolu dafay dimbali police mu def ay enquête mais boo tëbee ne diw moo joxe en tant que site bu mel ne Seneweb ah ak yeneen ak yeneen yoo xam mosuñ ko xamee si ay si ay ay ay fausse information tey bu ñëwee def genre genre genre góor gi daf ñuy jaaxal beneen bi si toog awa gis nga Sénégal dafa am loo xam dafa am loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel teel monde monde bi de moyens en moyen dafay nekk si insécurité te Sénégal li nga wax sànq laay confirmer bi fi lobby yi commencé dugg étranger yi commencé bari la population sénégalaise dañoo dañuy commencé nekk population société boo xam ne dañoo violente léegi nit ñi amatuñu yërmande léegi nit ñi néeg nañ nit ñi tey préfère nañ fekk ñaar ñuy xeex au lieu que ñuy àtte leen dox seen diggante ngir bañ ñu gaañante wala ñu rayante mais da ngay préféré taxaw jël téléphone di filmer naan yow dóor na ko kii xoolal dret bi dóor na ko très bien dóor bi dal na c'est-à-dire yow en personne sax yow tu es devenu violent yow mi nga xam ne doo agresseur doo criminel yow tu es devenu violent par rapport ak agresseur bi kooku dafay ne waxuma la violent kooku day nekk ultra violent pour mu rey day yomb criminel bi pour mu rey day yomb te loolu lan moo ko indi mooy population bi lobby yi ku man réussir nañ benn affaire mooy manipuler na leen ci man manipuler nañ leen si maanaam loo xam ne tey ne ni Sénégal baaxoowu ko Sénégal bu mos a nekk un pays pacifique pays bu bëri yërmande fii boo fi daan jàppante nit sax ñu sentir na yow kii nga jàppante ak yaa ko ëpp doole yaa ko néewal doole ñëpp yow la ñu duut baaraam nga ne li ko def waroo koo def mais léegi dañuy rey nit comme ndox da ngay toog dëj d' accord parce que fii chaque jour ak banlieue bi chaque jour nga dégg kenn yuuxu doo xam ko mu yuuxu mais dañu wax ay yuuxu boo ko déggee dañ koy dellu si ay yuuxu boo ko déggee dañ koy xool beneen problème bi mooy aussi ici à Dakar damaa seetlu da ngay dëkk ak Dakar rek laa gis Dakar rek laa gis nga ngeen ngeen nekk seen dëkkandoo si benn kër si benn appartement ku nekk yor appartement am doo leen xamante doo leen xamante parce que tey Aziz ak Waly ñooñu ñi mu ñi mu bokkal immeuble ñi mu dëkk mais ñooñu tey ñàkk xamante boobu noonu yàlla wërsëgal ko. Ah, mooy sama yéene bu doon def ñàkk a déggoo boobu noonu ku nekk tëj nekk suñu loolu bu amutoon tey est-ce que tey cas bi du du demee neneen est-ce que tey xam ne tey moo fi dugg def leen jëf jooju est-ce que dina am sañ-sañ fi dugg fa parce que dana ak kër gi ñëpp a xamal ñëpp a seq jàmm ñëpp ay waxante bunt yi day ubbeeku mais isolement bi nga xam ne moo am si biir société bi bokk na si liy permettre tamit agresseurs yi wala yi di def seen liggéey facilement parce que dëkk bopp sa bopp la. dañ lay romb si mbedd yi dana rey dun la sax lijjanti dañ lay romb si mbedd yi dañ la naka su dul loolu dañ la dul sax lijjanti te lii nii motif la boo xam ne nii yàgg nañ ko wax Sénégal ne danañ si jóg danañ si jóg danañ si jóg on se rappelle très bien communiqué bi nga xam ne police defoon na ko sur le cas de Kiné ne dinañ renforcer sécurité bi dinañ imposer des normes de patrouille Dakar dafa war a mën a am ay patrouille chaque semaine chaque nangam ak nangam mais après bu cas bi jàllee bu ñu jàppee waa ji ba Sénégal une semaine deux semaines ñu fàttali leen ko on passe autre chose noonu la ñuy xëyaatee un beau jour la le même cas bu ko defee Sénégalais yëpp jugaat mais précaution dafa war a am police mi ngi def liggéey liggéeyam gis nañ caméra yi nga xam ne impose maanaam def nañ ko si mbedd yi parce que caméra yi ku ko seetlu dañ koy gis am na possibilité jël à un kilomètre lépp luy daw à un kilomètre bu jàkkaarloog benn mbedd benn couloir à un kilomètre day xam lu nit ki fa jaar kan la da lay gis nii ni nii donc loolu tamit ay at la yoo xam dana dina dina dimbali policiers yi ñu war a mën a def seen liggéey awa ma bëgg nag ñu seetlu benn affaire ah. bu fekkee nit ñi seetlu nañ ko Sénégal boo seetloo ray yi fii am yëpp ray boo dégg ñu ne ray nañ seetlu ñaari jours yi lay am lu si ëpp samedi wala dimanche lu si ëpp bu xewul samedi su guddi xew dimanche si guddi parce que xam nga lu ko waral dëkk bi day jax ñëppay génn ñi nga xam ne dañoo nekk si milieu lobby bi ñëppay génn sacrifice yi day am yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu rek war naa mën a tax police renforcer sécurité bi te pour mu mën a renforcer sécurité bi il y a les maanaam possibilités yu war a mën a tax mu def ko am na parce que dëkk bi dafa bëri ay jeunes yoo xam ne dinaa la wax ñaari yoon ñaari mbir jeunes yoo xam ne dañoo nekk si dëkk bi def maanaam jaar armée recevoir benn formation militaire amuñu liggéey kooku pour mu jóg nekk criminel wala agresseur dafay yomb kooku bu ko tey buñ ko jëloon tey biñ ko engagé boo ko jëlee renforcer dugal ko biir police di nga yokk sécurité si dëkk bi te da nga wàññi insécurité bi beneen bi si toog dafay bëri ay jeunes yoo xam ne dañoo toog defuñu dara pare indiscipliné di dox si norme boo xam ne dañuy tàggook seen i sago dañuy rey nit si dañuy jëm nit si erreur dañuy agressé nit si erreur yooyu nag dafay yokk au fur et à mesure dem dem dem. dem dem jur fi benn insécurité totale. Sénégal dañoo dem ba boo yëpp ay agresseur lañ booy yëpp ay waxi jam la ñuy waxee. booy ay waxi damay ndell ay damay nangam ak nangam kooku bu jógee pour def yëf njuumte boo ko tegalee xaas bëri na ko defal ma lii da koy def. donc loolu noonu war nañ si mën a jël ay matuwaay chômage bi indi na ko. insécurité bi indi na ko. donc nañu jéem a xool lan lañ mën a régler situation yooyu parce que mi ngi fi possibilité yaa ngi fi toog waxtaan la toog waxtaan ñi nga xam ne ñoo gérer la sûreté et la sécurité nationale ñu toog waxtaan xool nan la ñuy trouver solution Dakar rëy Dakar xam na muy rëy nit waru fee mën a def ay yomte ba pare bëgg ñu te police ñun gën koo xam lu muy def kon enquête nañ ko bàyyi ci loxoy police ñu jox leen ay indice ah. d'accord d'accord d'accord ñu toog ñu ne diw ak diw diw si loolu mais bu ñu confirmé ne diw moo rey police génn loolu la boo xam ne moom moo fi nekk fu may terminer rek c'est très simple waaw fu may terminer c'est très simple manipulation bi bari na si côté ñaari meurtre yi ñii naan dimanche la ñii naan lundi la ñii naan booy bi xëyoon na dem si tailleur bi booy bi xëyoon na liggéey am na benn booy bi am na xaritam bu génn def vidéo daal ne waaw. waale yi kenn ray ko dimanche moom léegi ñoo àndoon def maa ngi koy gis si TikTok bi ay vidéo mais gars yi nañu tey ñu toog déglu police parce que xam nga man bu ñëpp defee comme man li ma def da ngay noppalu ñaari doomi Sénégal la yu gëmoon seen bopp waaw ah, yu nit ñi soppoon yàlla dogal na saay saay yi jël nañ seen bakkan naa toog déglu police nga xool lan la may tegal si paas yi man noonu laa fi maandoo parce que. version yi bu baree boo koy déglu mujj gi sa xel gi dalay jaaxal day mujjee indi benn enquête impossible yow doo xam kan ngay gëm ñii ne dimanche ñii ne lundi ñii ne liggéey ñii ne liggéey ñii ne diw leen njëkk a rey diw dafa liggéey wàcc dugg si kër gi ñu raay ko wax yu wax yu bëri yooyu yooyu day jaxase xelu Sénégalais te am na ñoo xam ne tey dañ koy def pour am si lan ay vues wala ay buzz wala ay abonné parce que yéen seen genre yi tax may wax parce que bu dee ay vues am ngeen ko abonné macha allah yeneen ak yeneen mais am na ñu siy profité tey di jéem a loolu di jéem a yàq information yi di manipuler di si tuumaal ay gor yoo xam ne yéen ñoom seexuñu ko sax comme la gaa borom borom yére olof bu bële bi ngeen waxante dëgg kooku boo ko xoolee da xam na mun a rey sax xale donc nañuy nañuy nañuy tey quoi sa benn benn sensibilisation la boo xam ne moom laa doon wax quoi en attendant ma bàyyi gars yi ñu wax merci beaucoup. merci beaucoup Pape Thiam am na solo bu baax a baax euh, Aïssatou ñoo ngi lay ziar. wala la barhamienne borom col bu rose bi la barhamienne wala Aysatu Diba. delloo ziar bu baax laa. sant yàlla bu wér. man benn affaire moom a jaaxal lu tax sénégalais yi hypocrite barki de moo njaay fii fii la awus def live ñëpp di dugg awus dafa mën fen day fen pati pata te ñoom en même temps damay gisaat ñoom ñooy jël live bi du ko la défendre en même temps <laughs> man nit en fait fit biñ fi euh, Aziz Dabala ñu teg ci xaw deux ou trois jours benn xale bu góor doxaan benn bu jigéen mu bañ dóor ko koy a man Sénégal maanaam d'accord mooy peine de mort bi di wax parti parta peine de mort boobu ma la parce que nit boo ma reyee nit lii yaakaar naa ne ko def te affaire bi ñu bëri ñoom naan. ah man damaa ci laaj rek bokk ci nabu gay nabu lay pati pata man pour man kenn fekkeewul ndax instant bi toll nañ foo xamante ne xaritoo daa mel ni amatul de ci li ma gis man. xaritoo amatul moo tax buñu naan nabu lay bokk ci parce que kenn xamul ñu demee parce que dib bu jig saa yi ñu ne dañ jàpp nañ nabu lay parce que nit ñi ñoo laay wax ni nabu gay lii nabu lay lii wala lii moo tax ñu ñoo jàpp ko xam mënul ne. déedéet. kon buñ ko jàppee daa fekk am na lu tax. bàyyi di wax loo xamante ne wóoru leen fekkee wuñ ko. man de loolu laa wax nit di ko di ko garde à vue mukk te soupçonné wuñu dara. voilà nit bu ñu njëkk say garde à vue ko nii nii kese te deful dara genre duñ jël sukkandiku ci ay nit diw moo def live nee na nabulee lii kon kañ dem jàppi ko ah ah di buñ jàppi ni daa fekk ñu am ci preuve di mën naa ne bokk na ci enquêteurs yi gën a aay ci Afrique bi. laaj te nabulee mënul ñëw ne. ubbi leen porte bi jéeg saay dugg ne ubbi leen waañ bi ñëw moom mënul soupçonné loolu loolu xel sax da koo nanguwul en fait mm-hmm. ba pare nit ñi ne Nabou Leye nit ñi ñoo ko bëggoon dugal xaw ma ci doon waxtaan ci laaj bi ne nit ñi ñoo parce que moom dañoo bi ñuy dem xamul woon ne dañuy dañuy dañuy rey ji biir nit ki mais yow dem nga fekk nga ñu koy rey xanaa nga yuuxu sax bu dee bokkoo ci complice o mën nañ koo reyaale di su fekkee noonu lan demee mais bu fekkee noonu la demee waaye yow génn nga rey nañ ñi rey ñibbi nañ xanaa au moins nga woo police nga wax ni man genre dama dugg man xaw ma ci woon dara. te dama leen a kon dañ may rey. vingt heures mooy lii loolu mais mënuma d' accord nit ñi ñëw nga ah. boole bu pare. moom la ci biir yow fekkee nga rey bi ba pare nga génn mel ni clim bàyyi ba affaire bi deux jours ba nit yëpp ko loolu yóbbu nga nekk ci hôpital loolu bi woowoo ko defoo ko dara xanaa bu dee même deux minutes nga jël ko sax nga ne ko diw ndax yaa ngi tane mhm. te yow yaa ko yóbbu hôpital waaw ah, wax nga dëgg de bu fekkee loolu la mënoon na dem police nank boole leer waaw waaye nit yow nee nga yaa ko yóbbu hôpital dimanche nga xëy léegi woo ko te kooku dafa feebaroon xanaa bu dee genre amoo jot nga jël benn deux minutes sax ne ko diw ba nga nga ne ko ba xam yaa ngi tane bu dee yëgoo dara takkoo ci fi mu ne Nabou Leye moom ñëpp bëgg nañ mu set kenn bëggul mu takk mais tamit dafa neexut a set tey. bilaay neexut a setal de. ñun ñëpp bëgg nañ mu set mais daa daa neexut a layal wallaahi dafa neexut a layal parce que nabu léegi nabu léegi ñu ne leen empreinte am nañ fekk xaw ma la la ñu ba bàyyi mais dafa neexut a setal ci parce que ju début bi live yi dañ commencé ñëpp dañoo doon wax turu nabu léegi nabu léegi man personnellement dama ne nabu léegi mu ngi cee bokk parce que moo Aziz foo leen fekk ñu ñaar ñooy ànd seen vidéo yi foo leen fekk ñoom ñaar ngay gis kon moom mënu cee mais bi ma déggee ne dib jàpp na ci man sama wax dama see génne ba mu seet ndax dib mënul ñëw jàpp nit ñi gis la nii rek jàpp la fekk ndax daa fekk am na lu tam mu jàpp la dëgg la loolu daal laa amoon lu ma wax merci beaucoup ma chérie kontaan nañ am na solo euh, Ibu Ibu ñoo ngi lay ziar awa delloo ziar namm naa la maa maa la raw. yàgg na fi de maa ngi dem waajal waxtu yi maa ngi ñëwaat. d'accord kontaan nañ torop. namu naa la. maa la raw lu bari ñoo lay ziar bu bëri. delloo ziar delloo masawu coono xam naa ni boobu ba léegi dallu woo. walaay li doon sax yàlla seetlu na ko. dëgg la lion la ko. mais nag sant yàlla rek. dëgg la rafetlu liggéey bi ba léegi kan? gëj dugg ci live bi parce que damay ñëw dugg taxaw xaar ba sonn. billaay demande yi mooy bëri man sax damay jiitu demande daa bëri ma bañ la déranger moo tax may wàccaat. dëgg la di dem. numéro bi bu ci wootee waat ñuy liggéey boobu la yaa ngi topp te lépp leer na. kan mooy maman xaw ma maman bu ci wootee waat laa très pertinent moom tamit li ñu ko wax yëpp macha allah. dëgg la. Sénégal nag instant bi lii ci wàcc ni wax léegi rek. la bar barxam yaan la xaw ma. Mhm. dafa bëri ay hypocrite te loolu lépp jikko yi yàq ñoo waral yi alalu àdduna lañ toog ba jikko yàq ba yàq suñuy jikko. dëgg la. yoon bi ñu ma bàyyi loon ñu jaaroon ci waroon see jaar dañ ko wàcc ku nekk ngi kër këri ndax alalu àdduna te àdduna dañu ne na nga ko jàpp ba mel ni doo mu saf ngi mais na nga ko bàyyi xel ba mel ni suba ngay dem. loo bari la bari la bari la fi nga koy bàyyi. dëgg la. xaw dama xamul lu ñaaw mënuma tas yaakaar bu ñu fekk kóllëre moo tax ay affaire bu amee yu mel nii daf may naqari Nabou Leye dafa nekk ku ko bëgg man dama koy suivre daf ma neex dëgg la maa neex trop commencement dama ko bëggoon a mais bi ci waat di dugal seen loxo ñu convoqué convoqué waat ko laa ci teey du ma ko weddil tamit du ne moom la du ma ne du moom ñëpp a ngi ay xarit Aziz intime la ñu nangul ko ñëpp ni xaritam la ba mu koy woowee papa Aziz naan yaay sama doom mais bu leen fàtte ni Thomas Sankara xaritam intime moo ko rey ñuy Blaise te Thomas ak Blaise fu jaar Aziz ak nabu jaaruñu fa Demba Diop ñu tuddee stade Demba Diop ancien maire de Mbour ay tam intime moko ray mom moom Demba Diop xaytu ben bakkenam moo ko rey Lat Dior mbokkam moo ko ak yu bare bare bare bare kon nabu lay manatu moko épargner dem naa ba ci bi est-ce que sax gaay yuñu yuusuñu ko mais lépp mën na nekk mais fekk defaraaruñ suñu jikko yii. Mhm. Sénégal daa du jot. dëgg la. dañ topp alalu àdduna du ci focus du ci focus parce que nekk ñu toll da ngaa bëgg am bu awus amee oto sax dama dama ko koy yéene. dëgg la dama koy yéene naa bopp. et mhm. pourtant noonu awus moo ko moom. dëgg la awus la ko yàlla jagleel. yàlla xamul lu war yàlla lu jot la xam. Mhm. parce que ñun bu ñu seetee Sénégal bu moo gën a neex moo gën a stable même bu ñu mag ñi amoon nañ ngor mag ñi amoon nañ jom mag ñi doon nañ rafetal dëkkandoo yi rafetoon nañ mais saa bi kenn gën kenn yaa ngi toj Ndakaaru ñu war a delluwaat nag yàlla dëgg la man damaa bàyyi naxante bi parce que man ak aw bu ñuy ànd di naxante bu ñuy tàqalikoo dañuy jëwante loolu dëgg. dëgg la man su nekkee mën naa ànd ak awa te yàlla tax te muy dëgg nañ ànd te yàlla tax te muy dëgg bu awa defee lu noonu damay taxaw nekk awa li nga def du noonu. dëgg la loolu la ànd ak nit chaque ma wax ko su ma xamee ne ma aw mi mënuñoo def ba mënuñoo def. ma classé ko teg leen leen xam ne mun ñoo def naa sax yow jaamu nag. lu ma la yéene lu bon li ma li ma yéene sama bopp moom laa la yéene. dëgg la. mais Sénégal la sa aay moo bari. parce que mm-hmm. voisine boobu ne dégg na yuuxu li mu déggee yuuxu bu intervenir woon wala mu woo police peut-être mën naa bañ a demee nii. Mm-hmm. mais Sénégal loo am ku topp kaa filmé. Mm-hmm. gis ni wax day accident di sukkuraat ci kaw tali ñu war kaa mën a sauver dañ koy filmé. il faut ñu delluwaat fi ñu maam tegoon ñun ñu ay mënu ñoo wax wax wax wax ba dess ñu bop ay tubab deug la. topando bi bari na. Mhm. ñun ay africain lañu ay sénégalais lañu. bu ñu war a di doy dañ wara a Cheikh amadou Bamba si mam El Hadji malik si Boukounta Ndiassane ñooñu la ñooy war a roy si ñoo lañ wara a ay Lat Dior Diop ay Alboury ndjay bu roy da ngay nit booy roy da ngay roy lu bax mais Sénégal jeunesse bi macha allah jeunesse bu bare baree baree bari nañ am mais amuñu yar koo ci waxal nga paaka parce que boobu dañuy drogué wu léegi pour ñu reyal dara si ñoom. dëgg la. nañ xaw ma ay 3000 francs la millions je sais pas bu doon 1 milliard jaru ko. Nabou Daye nag moom bu dee lii am na moom daa fekk kóllëre te bu dee gor la du yàggaat ci kaw suuf. dëgg la. doomu aadama da ngay gore ñun sénégalais ñu ñëw way yaraat yu bopp xam li suñuy valeur xam ni lii ñun du ay tubaab lii du suñu wàll ni da ngay am ay nolo ñu xool suñu nawle yi Amérique Amérique la France France la Arabie Saoudite Arabie Saoudite la Mali Mali la Sénégal Sénégal la dañu xool ñun li ñu moom ak ni war a mel li ñu bëgg ñu mel ñu mhm. ñu bëggee la bopp rek ay bàyyi ma. acca bisimilah Sénégal a ngi noonu. dëgg buntu boo xamante ni yàlla seede na ko bu ñu ko tëjulee. billaahi wallaahi taalaahi nañ ko bëgg tëj ñu tëju. Mhm. ñu lu neex waay wax lu neex waay def. am na lu neex parce que xamuñu lu bari. am na solo Ibo. kontaan na merci beaucoup mon frère. merci euh, Mariam. ñu ngi lay Mariam yaa may dégg. Jaina ba dengan ambil binububeri uh, sa uh, ka, MTV ya may din. Le dede, ça va? Non, les yeux, bouer, ça va, alhamdoulilah. Ça va bien, merci, alhamdoulilah. Rien de fait. Quand il y Bon, je vais de depuis hier encore maa ngi gis révélation yi ngay def def mën ngi nice macha li ma la lay wax rek mooy góor jigéen bu leen sax lijjanti nekkal ci li nga war a nekk ab jullit nga nekk doomu jullit te yaa ngi def li la war ci mbir man nag dama ci am benn souci bu ndaw rek ci kaawu booy waali allo waaw maa dégg waa mon frère maa dégg waa damaa tëj micro parce que Wally am ay mbokk ci dëkk am ay waajur yaayam bu dee yaayam am na rak baayam bu dee baayam am na rak ba dégloo sax ci ay magam nañu waxee man su doon man la xale boobu ñëw ci man dinaa jàpp ci loxoom kat dem ba ci ay mbokkam ñun kii kat samay loxo la nekk jël samay responsabilité mais li ma mënul concevoir aji dem ji dem na yàlla ko yàlla yërëm ko saytuwaat waaye dafa am ay erreur yoo xamante ni da ko kun tamit ci ñëw waali ci biir kër te ay famille waali boo déggee ni ñu doon waxee démb soo ko kontaan bu mbir mi ngay wax ni lépp li ci nekk li ko ëmb fin ba suite te bu génnee Sénégal yu bari dinañ dar seen nopp yi mbirum góor jigéen nag lekk bi yeneen ci nekk laxasu ci ba xeet ci dell a dégg dëgg daa ko dégg ku bëggul loolu moo ci nekk man sama gis-gis bi buñ ne Sénégal Sénégal dafa commencé yàqu Sénégal ba mu yàqoo du tey ay insécurité yi ñuy wax ak affaire bi nga jeunesse bi yëfu góor jigéen duggee ci biir xolu sénégalais yi ba léegi ndax ñu bëri ñu ciy dugg ñoo xamante nii ci affaire yi la ñu nekk di déposé di voyager moo leen koy jaral da ngeen di laal ci point bi di wax wax ji dem bitim réew moo tax ñu jël doomu jàmb yëpp di toll ni influencé leen ci loolu ñu nekk ci da ngay gis boo yoo xamante nii sax wallaay dañu bokk ci askan wu baax a baax nekk góor jigéen góor jigéen gi fi ñu toll moo yàq àdduna bi yëpp appartement yi ñu Sénégal appartement journalier yi yëpp wax ñuy xool ay këyit yu leer nañ jar sax nga dem bu pëli boo war am pour pour appartement parce que moo war a génn ak dafa yomb torop seize ans mhm. seize ans am dem di luy nekk Sénégal toog teg ne ak kër Aziz bu ñu ko fekkee yàmba yàmba kay bu fa nekkee kon xam nga ni jàmm xewu fa woon euh, affaire yu yàmba bi ñoom dañoo ñëw di toxandoo bon ak euh, ñun ñëpp gan bi ak Aziz ak ñoom ñëpp léegi ba ñu ba ñu doon ci la ñu jël ah, kële waali ci lañ ko yónni léegi le temps waali di dem yónnante bi di ñëw ci lañ profitoo rey rey Aziz ba defar ko waali ba mu ñëwee nag toogaat nañ tuuti ba lépp kalma ba ñëpp duggaat seen kër ak genre affaire yooyu ci lañ profitoo reyaat ki nga xamante ne moo di euh, kii waali noonu la affaire bon bi demee ñoom ñoo ko doon tox non ñoo ko la bu baax de déggatuñ la mani waaw Marème waaw kaayam waaw ñu ngi lay dégg ma ne doomu aadama buy buy tàggoog sagoom liñ la ne moo ko def bu ko ko miimal. billaay reyuwaale reyuwaale boobu noonu tey jii sabab bi lii nga wax noonu la la mën a demee parce que waale mënul nekk ci biir kër te mu ngi téléphone am que maa ngi am benn kii bu may seetaan ne dañoo kii ba pare dem fekk waale ci biir néeg bi dem rey ko loolu mu c'est impossible. Mhm. parce que waale mënul yor téléphone am ñu rey nit mu toog ci biir néeg bi mën a woote. Mhm. waale mënul nekk biir néegam. mu dégg yuuxu ñuy jamate ay paak xanaa nag appartement nit ñi xam nañ appartement bi ci biir benn appartement mën nga fa nekk di di ak six sept personnes bërte bërte faw mu am dëgg la faw mu am waa bu nekk ci dëkk bi dëkk bu rëy xam ah lan awo maam Marème ça va ça va bien alhamdulilah xam nga affaire bi dafa am loo xamante nii par par par heure bu nekk ak ak li ñu war a wax yaa ngi dégg. instant bii nii yow leer na na ne am na ñoo xamante ni ñu ngi si live bi mais li ñuy wax ni c'est déjà passé ñu dépassé nañu woy bu yàgg yàgg yàgg le premier jour bi la woon. instant bii nii am na yeneen cas yu nga xamante ni génn na. Mhm. ñu ngi nii toog si live bi xam nga ñun ñuy toog si live bi leer na ma am na kenn koo xamante ni yëgagu ko si. mais bu ñu nee laaj mm-hmm. nañu jël yi nga xamante ni moo bees ñu waxtaanee ko. dëgg la parce que li ñuy wax ni ñun déjà ñun xam nañ yëpp xool nañ ko ba pare. kon tey nañ jël li nga xamante ni moo bees ñu waxtaanee ko. dëgg la moo gën. am na am na solo yeneen information yu génnaan nañ ko jël ñu wax si lii paase na. dëgg la dëgg la. merci ma chérie man looloo taxoon sax ma yéex. d'accord. maa ngi lay gis ngay xuloo si suuf rek. <laughs> waaw dëgg nga awus awus man li kii wax moom laa ko mm-hmm. bi mooy nit ku mm-hmm. parce que dem na ba pare ay jëfam mm-hmm. yàlla yàlla kenn warul wax koo kii bi loolu moo important koo te beneen bi ñu ñi di werante ay heure bii la dee lundi la dee autopsie bi wax na ban jour la dee ak ban heure la dee loolu su tegee à côté nañu liggéey lan moo rey ak information dee loolu moo ëpp solo te beneen bi damay laaj mooy ñoom jumaay fekkee ñu ngi dégg nañu ubbi recrutement ñëpp jeune yëpp góor ak jigéen di ñëw dugg ci armée bi dugg ci police ñu def ñu bàyyi di wax soo amee diplôme ngay def ci police les jeunes yi traîné yi yëpp am diplôme mën nañ leen recruter dugal leen ci police bi ñu am liggéey. dëgg la parce que li parce que police bi amut personnel bu bëri. a la ASC yi ñuy jël loolu ñëpp mën nañ leen def def leen formation ñu nekk ay policiers. te ñu wàccee policiers yi ci biir dëkk bi. dëgg la parce que insécurité dafa bëri dafa bëri léegi Sénégal ku nekk yaa ngi ciy sa aw maa ngi jékku lu oh, sama gars yi ay information yu gën a yu gën a bizarre wàcc na ki ñun ñëpp ñu doon ragal ndax bokk na ci walla bokku si am na information bu ñëw de xaaral ma gëstu ko nag jox leen ko en attendant wax leen. E, ngom Ngom Ngom ñong lay ziar. Ngom bu fekke yaa may ti jël sa micro bi. ok caatu xalil e, Safia tu, su fekke ya may deg mën nga tijji sa micro bi. allo allo. allo Awus wa Ngom ma lay ziar. ya la ya ziar. ça va Safi xaaral tuuti Ngom wax ba bare après nga jël deg ok ah, Ngom ñoo ngi lay ziar. Saal ah, moom xam naa du si après bu baax ndax yow toujours booy live maa ngi si live. Mhm. mais affaire bi daal yéeme na comme ni ko soxla si mu waxee rek nit moom bu deewee da ngaa war war a wax si moom jëf rafet. dëgg la. waaye Sénégal léegi jàpp nit nen ku ku ku yor xar. dëgg la. normal te te ku képp ku rey bi dañ war a jël weer ko xaaj ko si dëkk bi. li nga ngay liggéey ko dina sori ndaxte ñun ñu ngi fi yaa ngi xamal ay xibaar yu bari yoo xamante ne xamuñu ko si woon. dëgg la. si monsieur bu bi mooy que nag nit ku nekk askan bi nga yor ndax Sénégal léegi dafa yaaxu ñi ñoo ngi si góor jigéen ñi ñi ñoo si ñi ñoo ngi lu leen saf te loolu noonu dafa war a dagg si Sénégal ndaxte Sénégal ay mag yu baax ñoo ko dagg. mais da ngay gis nit lu ko neex lay dund lu ko neex lay def te genre cas yu mel nii dañ koo war a dañ koo war a teg si biti ñëpp di ko gis ñu xam ne diw moo ko def bu ko defee nit suba buy def dina tiré si bu baax bu dina xam ne lii am na ñu ko defoon après lii lañ si jëlee te beneen bi dañu war a bàyyi képp ku rey nit ñu lay tëj ay cinq ans huit ans ñu lay génne ku rey nit dañ laa war a rey loolu loolu moo yoon. lool nag la amoon lu ma si leeral di jégalu ñëpp tamit awus alors yaa may dégg. waaw maa lay dégg waa Ngom maa lay dégg bu baax. loolu daal la amoon lu ma si sànni te aussi tamit. bëgg naa maa bëgg naa yow tamit nga abonné ñu xamante incha allah. amul problème mon frère dinaa abonné léegi si yow. incha allah merci jërëjëf merci beaucoup. am na solo. Euh, euh, Safi ñoo ngi lay ziar. sant yàlla bu wér. Ouskiti billaay lu mel ni Aziz Dabala xaw ma ko maa ngi fi ba jigéen soor fan yii dama lay si ànd deux heures du matin. dëgg la sama sama jëkkër naan bi doo topp xale ma ne ko xaaral damay topp kaa. dëgg la yàlla xoolal fan yii bu ma déggee nit ki gars yi ñu ngi leen di jàpp xool dama am soulagement. bu soulagement parce que ñi tëj la. mais nag fekk ñu jàpp leen man affaire bi ma laal je te jure. dama te sensibiliser waaw. te tamit euh, bëggoon naa ñaan tamit nguur su suñu mënee jàppale ci loolu mooy fan yi fecc bu xale yi génn mhm. ay sembere ay suus ay jàmm man daal sama vraiment su ma sañoon nguur bi dimbale ñu si loolu si yàlla parce que loolu day heurter xale yi ba duñu comprendre loolu lu mu signifie dëgg la waaw bëgg naa ñu jàppale ñu si loolu bu baax mhm, incha allah dinañ si taxaw jomaay dina ko dégg mu ngi lay si taab waaw jomaay ni ñu dimbale ci loolu parce que dañu am doom xam nga par bul ne xewul Ziguinchor Dakar la xew rek ñun suñu nekk ci lu daal foofu mun na ko yàlla dëgg la voilà ok merci Awouskiti yow rek la ñuy topp merci beaucoup Safi kontaan naa doxalal doxalal caat caatu xalil ma sœur maa ngi lay ziar yi nekk si laaj yëpp deux mille mille neuf cent maa leen di nuyu waxal maa ngi teg sama micro mais maa lay dégg dégg waaw d'accord en tout cas li ñu li ñu li ñu métti si affaire bi xamuñu avis quoi xamuñu avis mais xam nañu ne Sénégal lay ñu ko ci ci réew mi la dëkk. mais cas bi ni ñu méttee nañ trop ñu ngi nii ba Touba Mbacke bu màggal mais màggal bi ñëpp ñëpp la ñëpp la métti Sénégal nag ñii lii xamuñu ko woon mais deux ans yi li fi xew c'est trop ay rey nañ xam ay lakk nit ay affaire yu vulgaire nañ xam léegi nag cas bi li ci daas nag. démb ba tey information yaa ngi fi tudd ñeneen. am na am na am na nag beneen artiste bu mag buñ ciy tudd information yi nag kiwagul confirmé gul mais bu génnee loxo dina jib gémmiñ yooxu dina jib ko foogewul woon. ak ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi loo wax loo wax nga ne ba. mbaadu dafa génn gaa bi. am na ay artistes yoo xamante ni nii. Mhm. ñu siiw la te lu leen di wax si cas moo tax nuy leen cas bi nañ ci def ndànk parce que ñu bëri la. te bu fekkee loxo ko foogewul. dëgg la. na ñu nekk ba extérieur nekkunu Sénégal te si affaire bi si link boobu noonu si nanu bokk. mooy suñu bàjjan rek. suñu bàjjan la ñu ngi ñu ngi siy tudd ay jus ñu ngi siy tudd lu nekk. dëgg la na ñu siiw fii si Sénégal mu ngi leen di tudd si affaire bi ndaxte si groupe boobu nag bokk même bu ñu laalee wut si si affaire boo si bu bu laalewul ci rey bi aussi si groupe boobu nanu bokk donc awuj awuj bu nu leeralee kanam tuuti bu information leeral si kanam tuuti daa mhm. la daa la envoyé message whatsapp awuj kiti amul problème amul problème maa ngi lay déglu confirmation rek laay xaar bu amee rek naa la envoyé whatsapp mais affaire bi daal en tout cas li ñu jàpp uh-huh. nañu dina ëpp ñooñu dina am doole bu gis nga maa soo xoolal. wuy ba. gis nga ñooñu noonu bokk ci affaire bi mën nañ bañ a bokk ci rey bi mais ci lobby bi rey ci lañ bokk. très bien su lobby bi nañ bokk. très bien ay jàmb ay jàmbkat a ngi ci. ay fecckat a ngi ci. ñoom ñëpp ñii dañoo tas seen sëy dugg ci lobby bi ñii am na jaay am na jaay tamit ci lobby bi. très bien ça. noonu la demee. am na ñeneen ñeneen waaleykum awus léegi kon Thiat maa ngi lay maa ngi lay déglu yow soo soo ci kiiwee rek nga message la d'accord bul wax sa awa maa ngi lay ziar awa Touré def sant yàlla bu wér awa yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm bu baax man Gambien laa nakam yaa ngi ñoo lay ziar bu wér ah man de lii damaa jaaxal depuis boobu ba léegi mënu ma nelaw de mënu ma lekkal yi dama ko yërëm trop waaye yal na yàlla ki nga xam ne moo ko rey Aziz suma doom Aziz la tudd ndeysaan di bëggaam bi si guddi nelaw ma damay tëdd tuuti rek ma eew eh, même dañ ma ne yow jël nelaw ma daf ma ne moo tama ne xama dugal si liggéey fi actuellement man dina actuellement Aziz Dabala kaam bi quoi actuellement ci laa concentré wu ci direct yi mais doon naa dem jël interview fële quoi ci kër ga. ok jërëjëf. merci beaucoup ah bu fekkee yaa may dégg. ah bu fekkee yaa may dégg tëjee sa micro. ah. mais boo ko enregistré dugal ko doo ci am problème. no man nag direct direct laa bëri quoi Amina Faye bu dee yaa may dégg mais direct moo gën a dox. ay waay bàyyi leen di fi wax di voté Adamo bi suñu ah, yoon nekk si. Awa Ba ñu ngi lay oh, ziar. delloo man damay def direct ay 3000 personnes ñooy si ay. démb moom daanaka 7000 personnes ñu doon si am lu ñu parce que Sénégal benn bopp la te lu ñaaw xaju fi. instant yii nii nii rek maa ngi jàllale kaa aw si ci quoi mais daanaka da ngay dem ba ay vingt mille ay cinquante mille ñaan si yàlla ki def jëf ji yal na ko yàlla wees bëccëgu dara kaaba parce que mosoo gis kuy def lu bon di si am ndam amul fenn di def lu bon di si am ndam amul fenn mais dama hmm. yaakaar ne nit yow ak nit ah, ah, nit doomu aadama toll ni doomu hmm. aadama toll ak yàlla ni mu bëggee doomu aadama yow nan nga mën a tiimee doomu aadama ak lu mu mën ci ak loo leen mën a seq di nga def lu borom patron la moom du jënd ay machine jox leen. kon damay ragal ne est-ce que nit kooku réellement wér na. wér na koo wér ah, na jël machine waaye ah. parce ko doxalaat mhm. ma gisee kuy rey man dama naan yow wéroo. ndax nit lu mu tooy nga war a mën a ah, jël paaka di ko teg si ay. no non am nañu soxla am na am na abonné yu bëri. moo tax mhm. justice nag li ñu ñaan rek mu def liggéeyam daal na def ah, liggéeyam. parce que lii il faut mu jeex si si àdduna si dëkk bi. parce que fii Sénégal la dafa am sëriñ Touba am maam Abdou Aziz am ay kilifa yu baax a ah. baax yu fi nekk. lii du suñu waree lii waruñu ñun waruñu. boobu monétiser waruñu ñun. comprendre nga ah. dafa metti daal ñu ngi ñaan yàlla daal justice. li ko def lii yàlla na ko leeral ba mu leer nag ak képp ku si dugal loxo. Ah. yàlla na feeñ nañ loolu la ñuy ñaan yàlla awa. merci ñu ngi suñu sa live macha allah yàlla na yàlla doon suturé may la wér merci oh boobu baax na. affaire moom sa waay liggéey bi das na de <laughs> ay yàlla mi ñu sàkka de kaa bii de bu leen yeboo ngeen defaruwaat mais boobu am na abonné yu bëri ñi sanguwul woon dem leen ngeen sangu am na man moom tàmm tàmm ma sangu wax dëgg yàlla boobu <laughs> ah kon kay waxoo dara kan nga xaalis bu may sangu sax damay dugalaale laay si biir douche bi <laughs> teg ko ngeen di wax parce que gars bi das na das boo xamante ni man sax cent vingt mille man cent neuf cent a jeex laa nekk parce que lii narul jur jàmm ci réew mi narul ci réew mi non boo ko defee lamb boo ko mais mën na ci xaw a sii si ah, ah ok yàlla baax na jàmbkat yeeg ah pour ñu xaajoo quoi jaaykat ñëpp ci biir bàyyi leen ah. yow yaa tax may togg ceeb ay. ñoo ngi lay ziar ma laa lay defaral bi de. la wax benn affaire loolu moo ko doon arrangé. la sénégalaise ñoo ngi lay ziar parce que boo xoolee yaa ngi koy utilisé sant yàlla bu wér. Mhm. waaw dëgg la. Ah, ah. ah. uh, mhm. sa doo bi laa changé rek. ah mooy réewum people ndax boobu waxu politique la woon administration. ah ça va bien. ah man de c'était juste yëpp rek pour naqarlu cas bi comme ñëpp. en tant que sénégalaise parce que temps yëpp maa ngi lay déglu démb ba ngay fay salaay bi noonu si laa arrêté dem tëdd. dëgg la di nga naan ñaari ñëwaat. chaque mois trois cent mille. metti nañu trop trop sax man dama dem ba. léegi sa diggante gi yàlla benn si parce que ñameetu ma sax. laamaloog bañ. li kuy sonné ñameetu ma ko sax. ma wax la benn affaire bari ki alxuraanu ci lamb lu ci am chaque weer deux cent mille. nañ moytu xaritoo. jigéen ñi ak góor ñëpp nañ moytu xaritoo. laamaloog man xam naa gars yi liggéey ak moom laamaloog parfois day bëgg a ñëw sama day bëgg a ñëw sama appartement xam nga. mais xam nga man bëgguma liggéey bu salte quoi gars yi xam nga def da neexal parfois rom la jox la benn cinq mille nuyu la noonu quoi bu la soxlaa woo la utiliser la man xam ay ñoom ay même Assane Ro xam nga Assane

su ñu bëggee xarit dañ ko def suñu yaay yi suñu sœur yi ñu toog suñu biir kër yi eh, amul nooy def si biti ba toog ñenn ñi léegi naa ko tàmmal loolu naa ko demal émission may ko xaalis ay xarit mais après naa ko wax ne ko léegi da ngay ñëw ko yaa ngi yëbal day ñëw def ay kii quoi merci beaucoup ma chérie am na solo bu baax a baax kontaan mais léegi xam lu mu wax mu ne xaar ma waxtaan ci quoi mm-hmm. mu dem benn benn seen bu ñuy wax biir yëmbal ñoom mille abonné la am astu astu suuga waa biir yëmbal ni ñu ko expliqué ñoom ña ko mënoon liggéey sa kaw xam na yeew fekkaat na ko mu toog ay fan nag en problème location quoi woo ma en ah, général man day problème

man ou pas parce que man pas mal euh, analysé ci jaar un jour partie comment il a fait

Mhm. maanaam suñu borom bind na nit nit bind boo ini, ni nii yow nga ko rek jàkkaarloo ak sa morom yi di ko rey loolu bopp attanu ko xel xel xel billaahi loolu ku lisit munu ko surtout douze jam très bien man nga drogué wu nag ba nga xam ne xamatoo sa bopp fu muy nekk nga def lu la neex mhm. dëgg la ah. raisonnable awa mhm. euh, wax bari na yeneen source yaa ngi génn. man nga dëkk fa neexal je veux même pas prononcer de nom. te ku nekk xam nga gis nga gis nga lu bon. kaso sa sa pire ennemi sax tu lui souhaite pas du mal ce mal man boog sama pire ennemi du ma la sax yéene safaan googu noonu wallahi azim te yàlla nañ ci yàlla musal gis nga mujj gu rafet ku ne war na koo ñaan. dëgg la xale laa de j'ai pas beaucoup d'expérience mais au moins je vis avec des grandes personnes. ça fait presque une semaine que je dors pas dans ma chambre je dors chez ma belle-mère.

dee bari na fi y a pas mal d'assassinats mhm. ñu fi jot a rey bari na fi uh-huh. mais pourquoi ñu focus ci deewu ñaar ñii surtout Aziz ça aussi ça me pose ça me pose problème ça me pose tellement de problème hmm? mm-hmm. ma ne seen aada moo fort rek. waaw kay ñaata nit ñoo fi romb ñu chaque jour nga dégg ñu ne diw ren ne ko ay waay mm-hmm. kii lu mu ko def métti na.

Eh, yàlla leen yàlla defal mm-hmm. jàmm. tamit yàlla sàmm leen may la ak yéen ñi ci bàq Seydina Mohamed yàlla na yàlla leeral lépp. man fi ma nekkoon man maa nekkoon deuxième programme xale laa de mais maa fa nekkoon deuxième programme képp kuy di di àtte yàlla moo gën a àtte eh, doomu aadama ma dem ba commencé li ci kanam la li ci avantage boo xam ne gisuma ko ci laa arrêté mais gars yi nee nañ Aziz xam nga Sénégal da nga liggéey ko man gis nga xam nga kan laa njëkk a liggéeyal loolu la loolu la ma wax nee nañ Aziz motivation laa njëkk liggéeyal kon ñi ko rey ñoo indi yàmbaaru foofu sûrement daan def quoi ñoo fa doon tux mais mu dafa nekk gaaw pour pour ko rey gaaw am problème que nee nañ tuñum ñu tas te tuxkat tuñum day ñuul ñun ñu ci série Mariama bi baax la yooyu noonu ma bàyyi mu ngi àjjana dem ba benn instant xam naa xam ko la wax benn xaritam dinañ ko rey garaaw liggéey leen ñu commencé liggéey boobu monétisé wu ma maa ngi jàngale téléphone laa yor aw ma caméra. sant yàlla ñuy def les placements bu amee xaalis ma ne ko garaaw jëlal parce que liggéey mm. mën naa ngi liggéey. duñ am ma bàyyi ko lig motivation saa mu wax ma dara quoi. wax ma ko daal wax ma ko daal bàyyi ko ci biir. léegi am naa droit nit ki xam ne daa xëy xëy dem liggéey feneen li jënteetu la boo koy woo du la jël. boo ko vocal du la jël parce que dafa jàpp ne man dama sa doon dara quoi parce que boobu maa ngi am ay six mille abonné sept mille Dans Je pense Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. Il a été victime de son succès. ba àgg seen kër vocal parce que bu ñu seetloo Aziz clip yu bees mu nekk ay clip yi nga xamante ni am na succès Aziz moo ngi ci. maa la gën a capable. si si parce que clip yi ñu gis yëpp moom lañ jël su ma la gaañee it aussi moom lañ jël. moom lañ jël bàyyi bu commencé naan ma affaire ko def ma ne kii xam naa su ma ko toppee du baax quoi. saa ngay bëri ma plainte ko pour ñu wàññi ko. moom la ñuy jël bu xaw a bàyyi boobu ba tey affaire gis naa ma jël sariya gis naa nag xam naa moom xanaa xaw a gën a laal sariya na benn na de connexion bi dafa. xaw ko yàqal léegi sariya loo ko waxee lii moom lee lay def. ma xam ne kii boo ko yéexee bàyyi ko noonu da naan wala ci daal si quoi. ma jël sama benn chaîne ma jaay benn waaye 300000. en ko téléphone joxaat ma chaîne ko 300000. bu bëri bi aussi tamit jël chaîne boobu jox ko saliya. war nañ koo mën a wàññi ndax tey da ngay gis koo xam ne maanaam day bëgg nit mais est-ce que ñi ngay jaxasoo dinañ la bëgg xam nga ndax tey da gis nga ànd ak koo xamante ni yow da nga koy considéré comme frère wala sœur wala xarit fekk yow tey jii nii di nga am amaana as ci yow de euh, wala parfois sax nga ciy bokk ak moom mais xoolal parfois dina am xolu iñaan dajaloo boobu ñu doon wax ni ko dañu xam fekk ñu tox ak mën na bañ a tox waaye nangul ay xaritam ñu tox mais gars yi ci ñu lu ñuy mais tey peut bëgg ji ma leen bëgg dem jën day tax ba du ma leen mën a tere yenn yi studio wala bu ñuy def tellement que damay ouverte d'esprit damay ne ah garaawul ñoom seen vie la en peut-être tey loolu moo ko porté préjudice ndaxte loolu noonu ñu jëfandikoo moo leen gën a mën a may fit ñu def lii nga xamante ne moom la ñu def moo tax man jamono jii tiit naa ah, def lii nga xamante ne moom la ñu def ragal naa am ragal naa siiw ndax pour man boo xasee ba am walla nga siw rek dañ lay tëg bët et pourtant jaru ko fi nit ku nekk sa wërsëg ngay lekk lu dul sa wërsëg doo ko lekk nekk nañ ak moom gis nañ ni al même ku ko fréquenté wul sax war nga xam ne kii ku oyof la maanaam ñu ñuy jàppee boppam noonu lay jàppee ñëpp gis nga waali moom noonu ñuy wax waali Kolda fii la jógee man Kolda laa dëkk. Eh, eh, fii la doon yooyu tailleur dem Dakar. nee naa ko benn tafaatin sama mag la. dégg naa ay mbokkum génn di wax waaye seen wax rab ñaaw ñaaw na trop ndax ñaar ñi boo xoolee da ngay moo mag mais bëriwul yàlla moo lié seen destin te yàlla moo te yàlla bu liéwee seen destin ak foo doon samal suñu nag quoi waaw tey Aziz yi ñoom ñoom bu rafet ah, ah, ah, ci seen éducation ndax mënoon nañ ne man tey moo dem àll ba ma nekk fa un an même ma nekk ak ay ñu bay guy gi sama jër ma ne ko léegi man am naa fa gañ naa foofu léegi mais mais tey boo ko waxee lii moom def loolu leeral xam nga tey jii man dama bokk ci famille ma pare nekkaat yëmbal aussi jom jom du am combat ñëw wax ma ko ba ko sama maa jox ay eh, ñoom biib Diop ñoom ñëpp ma ci woo fii dama ko tey jii nii yooyu noonu bu boo ko waxee defal lii mooy noonu dinaa def parce a kii dem la woon quoi mën a kii ñëw parce que dañuy xam ne que peut être parfois fa nga nekkoon dañuy xam ne que def lu leen neex mais kàddu yi mënul naa rafet ndax ñoom ñëpp a génn àdduna xam xam ne mbirum yàlla la demal mu bañ mais man moom Aziz moom man je pense que li ko li ko yóbbee yëpp fréquentation bi la ak mbaax bi mu baax. matériel parce que valeur bu ma parce a strict am benn quartier bi nga yeboon nañ ne da ngaa soxor amul problème. léegi may wax parce que yooyu noonu après lu mu pour moom nag moom moom fenn fi ni yow dina la neex ëllëg. barki yàlla mais yàlla nañu yàlla dimbal ba ñu leeral lépp lépp ba tey dara leeru mais yàlla na lépp leer ci barki Seydina Mouhamed ndax lii métti na ñëpp ki ko xam ak ki ko xamul kenn nelawatul man démb damaa suivre sa live ba far